parce que tey li nu nekk ñoom Macky Sall leen ko def am na ci ñoo xam ni su at at su dul woon président Macky Sall àddina du wëlbatiku ba nu nekk fii ministre mënu noo pas sax chargé de mission. kam ñan. ñi ñi ñu nga wax ñii pëccëxoo ñii ci pëccëxoo bi yëpp nag ñoom ñëpp. Mhm. parce que ministre yu jëkk ya dañ daan ne dañ daan nekk euh, ay nit ñoo xam ne des hommes d' mais homme d' état du nekk di xuloo rek mhm. et puis ku ci xuloo. ku ci namm Macky Sall parce que li ñuy wax président Macky Sall santu leen ko parce que gëj ko sax gis ay trafic d' influence la ñuy def kenn du ci gis président Macky Sall. tal na leneen liggéeyam la tal. ku ko jigéen gis nag il faut nga yëglu dugg ci pëccëxoo bi xas say nawle yekk say nawle yi nga xam ni ñooñu le président Macky Sall moo leen jël teg ci wetam ñu fidèle nag ba pare euh, loyal parce que moi je ne peux pas concevoir une personne bëgguma woon sax mais léeg-léeg nga tudd tur ci ñu baax ñi. euh, une personnalité comme Boun Abdallah Dionne nekk euh, pendant cinq ans premier ministre nekk actuellement le secrétaire général de la présidence gën a jege Macky Sall ak liggéey bi mu liggéey tey ñu koy sànni ay xeer yoo xam ni c'est même pas honnête nit kooku dem nañ ba tàggee ko fi far mais genn soxor gi lan la. <laughs> dem nañ ba tàggee tàggee dem ba yéene sa moroomu jullit euh, mu dee ngay tàggee. dem bay wax dañ koy dàq mais président Macky de toute façon il est très intelligent et c'est un homme d'état du déglu ci ay waxu ay nit ñoo xam ne dañuy wax rek di sànni pour seen intérêt bopp pour muy jël ay décision une personne comme Amadou baax mais lan la def kenn moom mais personnalité bu taxaw jël ñëw ci antenne télévision toog pendant une heure de temps défendre boppam wax diggantee ak le président Macky Sall tey ñu wëlbatiku di koy yekk lu ne. Mhm. ministre de finance pendant cinq ans ministre des affaires étrangères tey ku nu yaakaar ku nu yaakaar parce que médiocre du bëgg du bëgg valeureux médiocre médiocre lay bëgg dañuy bëgg nekk fii rek wër le président Macky Sall di ko nax mais président Macky Sall du nangu loolu. Mhm. parce que président Macky Sall nag ak lu ci man dégg am na ay nit ñu valeureux. comme Boun Abdallah boobu ma lay wax comme euh, Amadou Ba comme Abdoulaye Daouda Diallo comme Omar Youm comme par exemple. Euh, euh, na nga koy waxeeti le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye. même même Cheikh Omar ann bi ñuy xas ku ne dëkkal ko fu ne sax il est valeur euh, ci ci kaawam sax dinañu ci ñëw ci kanam. incha allah mais mais c' ñu bon ñi. Mhm. ñoo ca ca gis nga ñi yàq ñooñu ku ci ne jaar nga ci kër ñooñu ngay yàq nekkoon fa euh, lécheur. Ah. du def euh, lécheur la wax. Ah. je mesure bien mes mots daan topp waa jooju. tey lan moo fi jar ay dàq nañu diw ay tas nañu lii ak ay kenn xamul kii dafa bëgg mais nit ku ne sax mais man su ma neexee sax am ambition bëgg euh, euh, nekk candidat. d'accord ci ambition nit la bokk. mais yooyu dafa jotagul. Mhm. et ñooñu ànd ak Macky man li ma wóor mooy ñoom ñëpp seen xel nekkul ci loolu xam nga seen xel lu mu nekk. Mhm. accompagner le président Macky Sall ci mandat bii mu liggéey réussir ko. Mhm. li ci des nag moom mbir yàlla la. lay di nuyu ñi seetaan ñëpp di nuyu Ndeye xat yi am mbégteel dalal Gaston alors euh, wax nga ko euh, ñi nga jàppee ni ay traître lañ est gisoo tey ni euh, président Macky Sall moom moo leen dooleel parce que comme ni nga ko waxee léegi Amadou Ba génn na temps yële passé ñëpp dégg ko mu clarifier position am ci biir parti bi. Mhm. mais gis nañu attaques yi mi ngi continuer gis nañ li xew barki Demba Ndiaye Parcelles Assainies président ba léegi waxul dara ñuy wax sax ni président moom partisan wu deux poids deux mesures la. non non non président du partisan deux poids deux mesures xam nga président mënul di nekk di di tontonteeg ay dof yuy wax rek bis bu nekk ay wax ay nit ay traître yuy wax rek président du tontonteeg président c'est un homme d'état moom xam na li mu xam xam na digganteem ak ay nitam xam na digganteem ak xam na digganteem ak médiocre yi xam na digganteem ak les valeureux président du ku tëb rek mu tontu la ñooñu ñooy yëglu rek président yoonam nekku ci loolu président. Euh, toujours mu gisee ak Ba toujours mu gisee ak Boun Abdallah toujours mu gisee ak ñi nga xam ne mu gisee ñooñu ñoo nekkatul dara ci système bi ca bëgg a bokkaat xam nga soo nekk doo ko bokkoon ci système nga xam ni erreur la fa dugaloon accident moo la fa dugal. mais justement ñi yëglu est-ce que dañoo xam ne lu ñu def dara du leen ci fekk moo tax ñu defee noonu. non mais dara parce que di attaquer responsable. publiquement di dem bay génn sax di wax ni dàq nañ ko ci coordination mais mais mais suñu nee di sa bopp. ak toog jàpp sa njaabur et puis topp toppale ji parce que là su leen le président Macky Sall woowoon sax ci la ñuy amee li nu bëgg ndax dana toog ak ñoom di wax ak ñoom ci di di ci discuter du leen woo da leen di ignorer complètement parce que nag nit moom su bonee da nga koy ignorer rek le président Macky Sall yàlla moo ko fi teg euh, ñi mu àndal am na ci ak foo gis même ci jigéen ñi mu àndal ñoom Ndeye Saly Dieng ñoom euh, Zahra Iyane ñu ay nit ñu baax la ñu ay jigéen nagam jigéen ñee baax di jigéen ju nekk foofu di wax dara ci côté président Macky Sall. góor ñi rek góoru wat bang yi rek ñooy nekk foofu di xaste di yàq te ñoom ñëpp lu nu doon lu ñu doon tey le président Macky Sall moo ko def su fekkoon ni ñoom ak Sénégal rek la duñ fi doon dara. d'accord metee na nan lañ mën a expliquer euh, balaa nday xam jël kàddu gi nan lañ mën a expliquer président ni bëggatul kenn ku wax ci mandat bi ñu gis ñu am ñu wax ci mandat bi ñu dàq leen mu am ñeneen ñu wax ci mandat ba léegi dara fekku leen ci. non mais kooku xam nga président xam nga soo waxee ay nit ñu continuer dof dof nga bàyyi leen continuer sa liggéey président mënul à tout moment di wax ay nit ñoo xam ni dégg nga li muy wax ak ñoom kii nu ko ca dàqul euh, ñu wax ci mandat bi. kum ki euh, euh, dañuy wax ni dàq na leen mais dàq na leen mais ñu ñu ñuy wax ni dàq na leen jëlaat na leen am na fu mu leen dugal. Moustapha Diakhaté ndax dàq nañ ko donte moom mi ni muy xeexee du noonu parce que Moustapha Diakhaté nag nit ñi xamante ne fii ci réew mi comme neex na nga toog ci plateau di tagg say maam ak soppoo waalo laat Sori Kaba tamit la même chose moom it fa mu nekkoon jëlee nañ ko foofu aussi am na lu ñu ko jox xaw am am na ñu ko jox ca ca it kooku Euh, moom dana ko waxal boobu fi su ngeen ko invité. mais wax ñu luñ ko jox rek. comme que yow xam nga yow xam nga loo xam ne xamuñu damay wax ci euh, par exemple Moussa Diakhaté wala keneen ku mën doon Mbaye Ndiaye oo Mbaye Niang clic yooyu ku mu neex nga taxaw ci télévision di tagg sa bopp mais Sénégal nit ñi xamante nanu ku mu neex nga topp fii waaloog euh, la man mi su ma neexoon taxaw di wax man la man daan la man barak waalo la kenn kenn du ko dindi. Mhm. mais loolu man safuma parce que man nekkuma bi di xool la sama maam ak samay baay man damaa bëgg a gën sama maam yeeg sama baay yi. Mhm. man sama bopp sama bopp lu ma mel sama sama bopp laay xool. mais du ma xool feneen mais dégg rek te ñooñu waaw te ñooñu. soo jaxate war naa taxaw di wax dara bu Macky Sall ñoo xamante noonu waru ko wax dara même su amee lu ko naqari na fexe nu mu gisee moom mais du média yi mooy faj mer du média yi ci lañu mën a jàppee Macky pour jàpp ko ci point pour jéem ko chantage mhm. moom digganteem ak jabaru Macky Sall rek waroon naa taxaw muy Marème Faye Sall rek waroon naa tax lu mu bëggoon a wax jaral waroon naa tax te mu mu suur àddina. d'accord te dem toog jàpp njaabaram ba yàlla dikk parce que yàlla amee ñëpp. Mhm. kenn amewul kenn Macky Sall le président Macky Sall amewul kenn nit ñi amewul kenn yàlla moo ame ñëpp mais nan gëm yàlla. Mhm. président Macky Sall fii ñu jaar jaar na fi ak le président lay Wade mais dafa def moom li nga xam ni mooy moom la war a def bàyyi même poste yoon ko joxoon yëpp mu bàyyi ko abandonné ko. dem wuti réew mi. Mhm. suñu banee suñu bëggee nan def noonu. mais moo gën ñu nekk fi yàq nit ñu baax ñi den ak Macky Sall. d'accord Ndeye Khady. <laughs> maa ngi lay nuyu Khady di nuyu Ndeye di nuyu tamit euh, suñu papa Gaston. Euh, man euh, fi ma bëggoon ñëwaat mooy sànq wax nga ko ci sa njëlbeen kàddu nee nga ci nguur gi ngeen ne dafa am ñoo xamante ne ñu valeureux nañ am ñoo xamante ne nag ci ni nga ko expliqué ay Ousmane Niapp laale. ay ay suulkatu ndaanaan waaw ay suulkatu ndaanaan dañuy suul ndaanaan suul ndaanaan la ñuy def. <laughs> ay yaa ngi dégg. <laughs> waaw nee na ay suulkatu ndaanaan la ñu bëgg suul fi ñu tollu gis nga xusuma euh, ñàpp yooyu ngay wax ñoo bëgg a suul ndaanaan yi te ndaanaan yi ne kenn du nangu kenn suul leen <laughs> <laughs> nee na dañoo bëgg a suul ndaanaan yi mhm. waaw wax nga ko nga ni am na ñoo xam ne jub nañ am ñoo xam ne jubal dinañ ci biir mhm. ñu gis itam Cour des comptes daal di jénne rapport am ñu toll ci ñeent fukk ñeenti téeméer ak jur ñaar fukk ak juróom yoo xam te ne war nañu déclaré la ñu am déclaré wuñu ko njiitu réew mi booba léegi moom moo nekk ci bopp bi mhm. te gisuñu ko mu mu def réaction ndax tey jii moom itam taxaw na taxawaay bi mat ba biir këram kenn du fa doxee nu ko neexul xam nga loolu Euh, xay loolu man mënu cee wax parce que njiitu réew mi moo moo fi teg of nag mhm. ñu jébbal koy rapport mhm. bu nu yàkkamti parce que nag man mënu wax géntu jaamur duma ko nettali mhm. le président Macky Sall ma jébb ma euh, teg of nagam nangoo recevoir ay rapport